ah business bi sant yàlla at least ñu ngi mën a manage am na yenn place yoo xamante ne gars yi dañ tëj waaye at least ñun mee nañu pour ñu ubbi ne halfway den ñu ngay jaay pour satisfy suñ customer yi am na ñoo xamante ne suñ tëjee sax dañu dee di stop dañu dee nekk di call waaye sant yàlla ñu ngay mën a jaay tuuti moo gën tëj bi oh dafa wàññeeku bu baax sax because before dañ daan jaay kéeg yu bari te dañ dee mën a am customer balaa yéen sometimes to before 12 cakes yi yëpp dañ dee jeex waaye léegi moom xam nga dañ dee mën a wàññi customer su amul dañ dee seet lu ñoo jaay su daan forty lañ daan jaay dañ dee mën a wàññi den ñu comme les let's say forty lañ daan léegi ñu ñee jaay 15 or 20 dafa wàññeeku bu baax sax déedéet dañu am special time ñun am na ñoo xam ne lañ dee ñëw ba 3 ñu wàcca ñeneen sif ñu ñu wàcca ñu start from 3 to 10 gaay wàcca dafa am ñu ñuñ yi dañ bari woon waaye am na ñuñ wàññi pour gaay yi toogangum si kër bi ba afta feebar bi su jeexee dañu mun a delluwaat ñu ñëw liggéey.